tey jii boo boo gisee agent ville de Rufisque yëpp génn dafa am lu ñu méttiwaat toujours li ñu doon wax rek moo ñëwaat mooy état bi respecté wul agent municipaux yi surtout agent municipaux yi parce que lu tax deux mois ngi nii le quinze la ñuy fayeeku léegi te li ko waral mooy état bi dafa génn benn système boo xam ne ne système Gefilog moo nekk nii système Gefilog boobu arrangé wul agent municipaux yi lu tax arrangé wuñu lu tax état bi tey jii deful ko fonctionnaire yi mu jël agent municipaux yi teg leen ko bu njëkk suñuy salaire bu ñëwee bu jógee petit centre day ñëw petit centre dem trésor trésor viré léegi état bi dindi loolu indi benn système boo xam ne système Gefilog lañ koy wax te nee na ñeenti nit ñoo ko gérer si Sénégal ñeenti nit ñeenti nit noonu dañuy toog ba heure bu leen neexee ñu viré suñuy salaire loolu nag lay ñun ay borom njaboot lañ du ñu mën di toog le quinze di fayeeku loolu tax tey ñun ñëpp ñu génn taxaw ne bëgguñu Gefilog waaw tey ñun ñii ñëpp génn nañu suñuy école suñuy doom ñëpp gënal nañ leen école ñëpp tout le monde ñu ñu lu ñu fay ñu doon luyaas ñëpp gënal nañ leen te dund bi dafa metti tey benn agent municipal tey amul dépense boo yóbbul seen kër léegi nag ñu ngi wax état bi na dellu ginnaaw si Zefilong boobu mu def tey bu si dellu ginnaaw nag tey jii xam nga gis amuñu autorisation te gën nañ mais bii di ñëw autorisation sans autorisation dinañ génn si tali bi baara tali bi xeexa état bi nekk na respecté agent municipaux yi parce que ñun tamit ay borom njaboot lañ si Sénégal lañ bokk loolu moo taxoon tey ñu génn Jafilog bi bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg na deñ ancien système bi ñu doon fayee nañ dellu si loolu loolu moo taxoon ñu ñu génn tey